dëkk boo xamante ni dëkk bu bu maanaam kenn mënul xam li lépp la sax. boo ko waxee sax dañ mhm. lay ŋàññi. Mhm. xam nga. Mhm. xoolal maa ngi dégg koroog boucher. boucher waaw boucher ah. xalifa rapport taxaw di saaga. ak di ak six mille. ah waxu leen dara nekk bañ téye leen mu doog a taxaw naan dañu bëgg ñu baal leen te mu nekkoon ci seen kaa ñoom di saaga affaire fen yooyu mooy la affaire jaxas yooyu mooy la. jaaru bouger kon da nga jàpp ne rek da koo woon wax ci taalu taalu loolu défaillant la. Mhm. xam nga nit ki yow nga mu wóor ma ni yow maag yow xam nga moom bu baax. Mhm. ma taxaw di saaga kii. Mhm. nga xam ko yow xam ci bi wér. ñëwoon ne ma arrêté sa saaga yi lii ngay def baaxul. nekk ba ma ba ba kii porte ma plainte yu téema nga doog a génn ci télé di wax. affaire seytaane yooyu man dama bëgg réew mi kon rafetlu woo loolu bu non dama ko rafetlu affaire seytaane la naa feq lañ. ay du naa feq lañ ay duñu dara ay naa feq lañ nit nit Mhm. boo respecté sa gis nga gentleman dëgg dëgg dëgg. Mhm. doo ko gis mu dugg ci ay ay saagan nit wala di xeex ak nit wala di reyante wala nangam. Mhm. gentleman dëgg day bàyyi bañ tooñ ko mu faj ko. mais taxaw ci réseaux sociaux yi kii daa takk sëkk suuf te booy bi heure bu la rombee. mën na laa romb ba dem doo ko gis ndax oto yi ligg si la yor. tent vitiram hmm. di dimbali nit ñi. Hmm. li ko yàlla may mu te teral doomu aadama yi. Hmm. loolu laa gëm ci patriote Wally Seck loolu lay def. mais père est-ce que bëgg nañoo xam ah, lan mooy euh, sa affinité yaak euh, Wally Seck parce que gis nañ à chaque fois da ngay wax ci moom. vraiment mu ne doon laa tey. Ah, non yéen lan ngeen sekk. gis nga Wally ba yéen ngi déggante wala. Wally bu amee ay milliards am yéene naa ko soxlawu ma man question de couleur lay ànd ak nit. baayam maag baayam la woon. ah ndeysaan boobu Waly mënagul sax. Mhm. papam Thion Seck. yàlla mhm. xëppee àjjana defal ma lu ne. allahumma amiin billaahi wala tànk bu gis nga teere ba la indi naa ko fi. Mhm. te boobu Thion neexut a déranger. mu ànd ak Dame Diop. ñoom ñaar ñëpp yàlla nañu xëppee àjjana. man colère boobu laay jàppe nit. du alal laay jàppe nit. mais kon du ma wayaanal kenn. mais père kon John ba ko waxee du ma kenn laa mais. mais su ma gisee ci nit ki lu baax. mu di ko def. Mhm. dama jege ko xam ko. Mhm. du ma hypocrite damay génn wax ko. Mhm. bu laajee xeex sax dama koy def barki Sëñ Tuubaa d' accord comme ni nga ko waxee sama doom sama lépp la. ni ko waxee ne yàgg papaam yéen a daan ànd. kon euh, bi nga xamante ni jot na kon instant yi euh, nga déggante ak moom jéem a toog moom waxtaan ak moom parce que li nga xamante ni yàgg papaam yéen a ànd comme dina soxla li nga xamante ni yow say conseils. waaw effectivement mais loolu mooy àdduna àdduna nit. nit kenn du ko lekk kenn du ko naan nit njëriñ lañ koy dee. Mhm. te Wally ku na xam ne ni boo gosse. Mhm. il travaille. Mhm. xam nga ñu liggéey barki dem gis nga leen def Gàmbi. ah mais kooku nag wax dëgg yàlla ay nit taxaw yow wayoo. woyaanoo waaw wayoo woyaanoo. taxaw di xas nit ki saaga nit ki wax lu ne nit ki. xam nga defe ni gërëyee nga doo gërëyee. li béy bi lekk di cëpp cëppi moom la xar mi lekk ne nem. barki Sëñ Tuubaa Mbàkke. xam nga dafa am yoo xamante ni booy nit da ngay bëgg sa bopp xoole yéen ay jantal booy ngeen xale yu mm-hmm. ndaw ngeen mm-hmm. yor seen liggéey di liggéey kenn fayu leen ngeen di saagawaate te nee ma rek kan moo gis ku yi fay na ko demal nga saagawaate ci mm-hmm. amul amul jot gi sax alors mi ngi noonu ah, tey loolu lañ doon waxtaane am na solo mais duñ def rek lu dul ah, dugg ci li nga xamante ni moom la àdduna di xaaree Père Khadim Ndiaye parce que Père Khadim Ndiaye boo ko waxee rek ah, wax nga làmb ñu gis ni komba Eumeu Sène ak Bombardier bi passé yàlla def ni euh, victoire bi Eumeu Sène daan Bombardier du ñu defe lu jox euh, père mu analyser ni combat boobu nan la ko jàngatee ak bëree bi ak lépp père combat boobu nan lan nga ci mën a dikkalaatal. waaw komba bi liñ ci mën a wax. Mhm. mooy combat bu neex la woon muy diggante Bombardier ak Eumeu mhm. euh, yàlla dogal Bombardier Eumeu Sène am ndam ci koom. Mhm. mais Bombardier dee mérité mais kuy wax sportif. Mhm. au niveau. Mhm. mënoo ci génne bombardier. Mhm. ndax sportif la. su daanoo day ànd ak gëm yàlla su daanee day ànd ak gëm yàlla. loolu ku ne mën nañ ko seedeel. mu doon bëri nag jàmbaar yi fëkk dëdd boo xamante ni tey tey mën naa ni waa Pikine waa yëpp. tey ama seet sigil ne leen. ndax ku bëreeg Balla Gaye ñaari yoon daan ko. bëreeg Modou daan ko. jàpp booy di leen agressé. tey nekk seen bête noire ñoom ñëpp ci booy mag leen ba mhm. pare jàpp leen di leen karawaase par benn mhm. xam nga ba mu des ama seen ama seen ñëw tracé ko ñaari yoon mhm. kon Pikine il est temps ñu xam ne am nañ champion te champion bi mooy kan mooy ama Sène alors technique bi ko bi ko bi ko Eumeu Sène daanee père doo ci dikkalaatal waaw technique bi boo dee seet sax danga naan Eumeu seen dafa duma Bombardier daan ko ndax Eumeu Sène moo xeex moo attaqué moo bëri mais ëmma gis nañ ko bu bu ah, bu mu daanee dafa toog ne ah, première ah, jàppante bi ñu jàppante dafa mel dafa nax Bombardier mel sonn dem laaj. non wax naa leen ko wax naa leen ko. sa waxoon naa ko ci benn interview ma ni leen. Mhm. waxoon naa leen Eumeu Sène c'est un grand champion. c'est ñun ñi sax waxoon nga ñu ko. waxoon naa leen ko la xanaa Eumeu Sène sa mbër la. ñu bëri yaakaar ni c'est que boo dee dëgg sax ñu bëri dañu yaakaar ni. Mhm. ka ngay waxal dalaa compal. wala da ngaa dem këram nangam ak nangam. mënuma mhm. leen sax kër Eumeu Sène fu mu dëkk. ci mhm. mbaaw gi te jege na ma mhm. munu ma ne la fii la Eumeu Sène dëkk barke Sëñ Tuubaa Mbàkke mhm. mais da lu baax soo ko gisee danga koy wax Eumeu Sène champion la dafa dama gis ay qualité ci moom te gis nga bañ dawee xeex jàppoo Eumeu seen daw daw ëñ ko daw poussé ko ñuy daw génn saako yi bi Eumeu Sène ñëwee mënoon na taxaw arbitre soufflé mais dafa mel ni ku ku soxlaatul ku pare ci kaw terrain bi ñëpp ñëpp naan c'est fini benn cong moom la ci Eumeu Sène amoon dëb ma toog ci kaw tribune man la ma ne ma den la ama seen a ngi nax waa làmb ji de mu ne ma ne ma ne far ma ko mi ngi nax waa làmb ji mais sax jaxbante boobu sax yaakaar naa ne mbër mu entraîné ay at loolu war lu war lu mën a sonal dañu waxante dëgg mhm. bi mu demee ñëw Bombardier sax mi ngi téye ci loxo muy fippu dem dafa gis nga dafa naan ndox rek ñëw bi mu ñëwee dafa dafa bàyyi Eumeu dafa bàyyi ak làmb ji Bombardier dirigé mhm. premier round bi Eumeu Sène moo dirigé deuxième round bi Bombardier moo dirigé mhm. fekk loolu gis nga dana kurtum rek dafa sànni dafa sànni laaw rek mu mu sëgg rek esquive réew jàpp ko mhm. bi mu ko jàppee mhm. ci la téeb bi Bombardier roccee loxom ci la sawaay am appui <laughs> ci la xëcc benn tànkam laay waxtaanal lii waaw yaa ngi dégg ci la xëcc tànkam euh. daw pivoté ko barki sëñ Tuubaa Mbàkke ku mënul bëre mënoo li ëma seen def mais ak Bombardier poids bi mu am ak bi mu am nga xëcc ko faax ko mu ñëw da ko da ko am daf ko minimi daf ko daf ko dafa am lu mu wàññi ci moom mhm. dafa dafa dafa daf ko fàqat ba pare xëccaale loos yi te nee na loxo bi dafa rëcc bu rëcculoon. waaw sax da koy dóor padd. Mm-hmm. mooy mooy moo ne ni technique bi ma waxoon ci moom. Mm-hmm. du far du dara ñoom ñaar ñëpp samay ay samay rakk lañ samay frère lañ. Mm-hmm. amul far qualité ku ma ci gis say qualité dama koy wax. qualité boobu laa gis ci moom. te ama seen wax dëgg yàlla. ndaanaan la ci làmb ji quoi ku daan bombardier ñaari yoon nag wax dëgg yàlla moom. ah wax dëgg yàlla nag ubbi na làmb ji. mais bombardier tamit bi mu seetaanee dafa ni daanuwul. ba mu ko gisee dafa nangu ni daanu na. ndeysaan mu mu nekk champion opor mhm. ba pare du wax lu ñaaw mukk mhm. mais tamit père bëgg naa tey foofu ñu dikkaat fa champion bu mel ni Bombardier mhm. euh, defal lu nekk waa mbuur est-ce que tey yoon na Bombardier war a bëree fii Dakar mun naa ni kenn topp ko parce que gars yi ñu koy kaas Bombardier dañ koy yàgg seetaan waa Mbour day jàmbaar rek di góor mais autorité mbuur yi du ñu dara autorité Mbour yi du ñu dara ñun presque ñun looloo ñu xawoon a dal sax Mm-hmm. ñun looloo ñu xawoon a daal maire bi fi nekkoon daawul jàppale benn mbër. Mm-hmm. mais ku fi jàppalu mbër la la fiy jëlee sax doo ko xam jóge fi keneen a fi toog jeune. te mu ngi mm-hmm. jàppale boobu loolu dafa yàgg quoi. dafa yàgg boobu dafa yàgg ci Bombardier ji ñoom Bombardier ji ba ñoo ko na guddi guddi mbuur. mbuur waaw loolu loolay slogan. te mënoon na am mooy jënd fii kër. bu bëree di fi préparé wu di daan bu noppalu ko ba pare dem mbuur mhm. mais dana guddi guddi mbuur mhm. waa mbuur ñoo ko waroon accompagner mhm. xam nga ñoo ko waroon accompagner jàppale ko xam ne kii doomu mbuur la taxaw ni nit ki gis nga bombardier kor boo dee seet indiwul sax dix personnes ci làmb ji mais loolu dafa ñaaw